jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare TV nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni ñu koy defalee saa su mbokk yi tey nag ma dalal champion boo xamante ni kenn du ko na seet si ko ci lenn loo xamante ne société ndax ku xam mbër xam ne porteur de voix ku xam mbër xam ne mbër mooy société tey ñu seet si ko ngir waxtaan ak ñoom Alioune Seye maa lay maa lay fay maa lay ziar di la jox sa wàccuwaay di la ziar di ziar waa wasaare làmb yëpp. di ziar waaw wasaare waaw wasaare wasaare société waaw wasaare société maa leen di ziar di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay ñoom ñëpp hmm. ak mais mbokk internet yi ñu ngi leen di ziar di leen bëggee bu baax a baax a baax euh, euh, mu am loo xamante xew na ci dëkk bi hmm. ko wala daawuñu ko woon gis ay góor ak jigéen ñoo xamante ne majeur ñu sax luy ay appartement nekk ci di def naka sudu moom te ku xam mbër xam mbër papa mbër nijaay la mbër mag la mbër rakk la da mhm. yor ay xale yoo xamante ne ay mbooloo ñooy topp ci ginnaaw mhm. leen encadré mhm. bi nga ko yëgee en tant que lutteur euh, ban yëg-yëg nga ci am waaw baa bi ma ci mooy comme yëg-yëg bi ko sénégalais yëpp am rek wax dëgg yàlla di ko naqarlu wax dëgg yàlla ndax Sénégal ñun xamuñu loolu xamuñu lu xamuñu lu ñaaw xamuñu lu bon lu rafet rek lañ tàmm di wax lu rafet lañ tàmm di gis bañ na ko bañ ne ne Sénégal dëkku teranga la kon yooyu bu fekkee dañ ko commencé di gis suñu société bi kon jot nañu tiit jot na tamit waajur yi xam nga euh, ñaaxaat euh, ñaaxaat seen i famille seen i njaboot yi jàppaat seen famille yaraat leen nañ leen war a yaree ndax lii ma gis nii mu mu ñu tàmbali nii ñu jógte amaana ñi dañoo feeñ rek mais am na yeneen yuy xew ci suuf yoo xamante ni gars yi yëguñu ko mais ñuy ñaan ñi nga xamante ñoo ci war a wax ñoo ci war a dox ñu dox ci wax ci ndax lii lii di raam ni ci ñag bi la jëm amaana ay xale ñoo ko def mais liñ naan loo gis ñu bàyyi bàyyi ko rek amaana am na fu ñu ko fu ñu ko jëlee te nag fa lañ ko fañ ko jëlee fa lañ fa lañ war fa lañ ko war a tàmbalee ci li naa wañ ba wañ nga bañ na ca mbànjaxaan nga kon foofu la ñu war a tàmbalee ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen mag di def loolu noonu ci ñoom la ñu war a njëkkee ndax ñu naan naa bu ndaw bu mu def rek ci mag ba la ko gisee mm-hmm. kon bu ko defee xam nga ku ci war a taxaw taxaw ci rek ñu ci war a wax ci bu ko defee loolu dootul amati. waaw xale yoo xamante ni juddu ñuy def naka si biir noonu bu koy film di ko wane tey àdduna bi lépp di ko gis est-ce que ñooñu tey séntu nañu ëllëg nii mën nañoo màgg dinañ yore doom dinañ que expérience mu waaw ku nekk xam nga war nga li ngay def nga séntu sa digganteeg suñu borom. Mm-hmm. ndax doon xale teewut am jom. doon mu xale teewut ak garder sa de ndax bu dee ko jigéen ki suba mooy nekk yaay suba mooy nekk leneen ak leneen bu dee ku góor ki suba mooy nekk ilimaan mooy nekk leneen ak leneen leneen kon xam nga donte ndaw nga waroo bàyyi sa bopp waroo sàggane sa bopp ndax li ñuy def nii sàggane seen bopp la ndax def loo xamante ni maanaam à vie lay topp nit ku nekk di nga ñaan yàlla sa way ëllëg rafet mais li ñuy def nii moom wax dëgg yàlla ñaawlu nañ ko trop te képp kuy jeune war nga cee tirer leçon ba lu mel nii bañ la dalati. Mm-hmm. waaw mu bañ la dalati waaw. ndax internet moom kasa bu la. non kasa bu amul la am waaw du am waaw am génnukaay. Mm-hmm. surtout loolu bu fekkee ne ñu ngi bàyyi loolu xel rek amaana yu bëri dootuñ si dugg. Mm-hmm. waaw ndax affaire bi dafa fréquence yi société bi léegi te wax dëgg yàlla baaxowul sénégalais di def yu mel noonu. mais nag ñu ngi ñaan yàlla mi nga xamante moo mën a jubal moo mën a soppi. mu sopp bépp xelu jeune boo xamante ni jublu woon na pour def loolu wala mu nekkoon ci suñu borom wëlbati la ba nga ñëwaat société bi te xam ne àdduna mu solo lu rafet moo gën lu ñaaw ñaareel bi muy toll nañ fi mu toll euh, ba démb ñu ngi gis waa Cité Fadia baare nañ tali bi di mars ngir la nee nañ semaine wala ñaari semaine yi ñu amuñu ndox ndox bi moom géej waaye xam naa ni yegseegul fi non manqué ndox mi yegseegul géej waaye wax dëgg yàlla mais di ñaan autorité yi rek ñu jàppale ci askan wi. wax dëgg yàlla nit mun naa ñàkk lu ne ba mu des euh, lekk ak naan. te ndox moom dafa bokk ci xam nga ci doomu aadama. ndox dafa ndox bokk ci doomu aadama. kon ñi nga xam ne ñoom ñooy taxaw ndox mi ñu ngi leen di ñaanalaat suñu borom kàttanal leen xaw ma ndox mi lu ko téye xaw ma paan la xaw ma lan la mais ñu ñaanal leen rek euh, ba suñu borom. kàttanal leen ba lépp loo xam ne bëgg nañ ko ci ndox mi suñu borom jàppale leen ci. mais ndox société daa warul ñàkk ndox. waaw métti na trop nag di xëy soo ba ngoon war a togg war a sangu xam nga war a def lu ne ci ndox war cee jàpp. war def lu ne nga xëy amoo ndox suba ba ngoon dafa metti waaw ñu jàppale société bi te xam ne ndox moom dafa bokk société bi waaw. Euh, li nga xamante ni mooy wàllu feebar bi nga xamante ni fi mu toll nii lëmb na àdduna. Hmm. yéen mbër yi moom coronavirus yi ngeen waatee ndax da doon jaay doole waaye bu ñëwee tëj na salle de musculation yi tëj géej gi arrêté làmb ji nan nga ko gisee. waaw coronavirus moom ñu ngi ñaan suñu borom suñu borom gaa ko fee jëlee rek wax dëgg yàlla. coronavirus moom waxuma la dóor ko mais daf ñoo caxabal mbot ñu wéyee la ñu def ñu lépp. te du mbëri rek la caxabal nag àdduna bi yëpp la caxabal. wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan suñu borom jëlee ko fi gaaw ndax wax dëgg yàlla xam nga metti na trop. mais sunu borom mi ko fi wàccee moom am na kàttanu jële ko fi te yàlla fi jële balaa yàgg ci barke Seydina moom waaw. 23 heures le couvre-feu bi am mais dégg naa Alioune Seye day dox kenn ko laal. non non non non man doo ma may respecté couvre bi comme comme ni ko sénégalais yëpp respecté. ma bañ na ko yenn saa yi samay heures yu bëri dama leen koy may dama leen di may yenn saa yi heures de temps. Hmm. waaw fu 21 heures jotee maa ngi sama kër biñ koy defee 20 heures fu 18 heures jotee wala 19 maa ngi sama biir kër wax dëgg yàlla di ñaan gaa yi xam nga ñu jàppale ñu jàppale askan rek te xam ne c'est nous dans nous moom ñoo ko bokk xam nga su baaxee ñun la baaxal su yàqoo ñu la yàqu kon nañu si jàpp rek waaw pour mu baax waaw. Aliou Seye bu bari ci lan nga dëgg yàlla sama temps bu bari ci entraînement ci làmb laa ko passé. waaw sama temps bu bari ci làmb laa ko paase waaw. boo waaw nekk samay business rek di waxtaan ak samay nit yu baax. Hmm. waaw ci loolu laa ëpp lu may nekk waaye. Hmm. lan nga gis ni ci réew mi loo xamante ne war nañ ko cee mën a changer ci jikko yi ak lan lañ war a a defaraat yi. ku nekk rek. nga jàpp ne Sénégal sa Sénégal la su baaxee yow la baaxal su yàqoo yow la yàqu hmm. defaraat jikko yi rek buñ defaraatee jikko yi buñ defaraat jikko yi rek lépp baax. ku nekk li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom kenn bañ a xoxotal kenn kenn bañ a napp kenn kenn bañ a def kenn lu ñaaw kenn benn wax kenn lu ñaaw suñ ko defee rek suñu Sénégal jëm kanam loolu laa bëgg ñu lay jaajëfal bu baax waaw ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ziar waa jil di kontaan ci waa wasaar waaw di sama chéri Fatma Dia dama lay gaañ kooku ñu bay ba eh bàyyi na avance ba nee na daf may gaañ bas jaa ngeen jëf mbokk yi seetaan Wassare TV gis ngeen kook laa dalaloon ci société bi muy Alioune Seye numéro 2 waxtaan bi am na solo loolu macha allah Alioune Seye kon maa lay jaajëfal bu baax a baax a baa ji ñu ngi lay bëggee di leen joxaat sa baax di nuyu ñëpp rek waa nuyu waa Sénégal yëpp waaw. ngeen jëf ba ëllëg incha allah ci beneen jàng.